ci kanamu kàddu gu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laa tarfa'u aswaatakum fawqa sawti nabi ñoom nag eh, ñoo fi représenté yonent bi sallallahu ndax al ulama warasatul anbiya ba tax na ñu ngi leen jégalu baax sëriñ bi ci kàddu yi ñu yëkkati kàddu yi nag kàddu yi ñu tënk lay doon ndax waxtu wi dañoo xaw a xoj ndax ajjuma ji ku ne xam nga soreetul xam naa li ci des daanaka ëppul waxtu kanaa kàddu cant la yoo xam dañ koy yëkkati ci turu mbooloo ñi nga xamante ne mooy ahfaadi maam Seex Anta te kër yëpp nekk ci biir la ko dalee ci kër Seex Mouhamadul Maamoun nga xamante ni am na jagleel gu ne ci Serigne Touba ba ci kër Serigne Abdou Gora ñu jigéen ñi ak ñu góor ñi ñëpp seen njaboot yaa ngi ci biir ñi àndu ak sëñ gaawaan itam ci pas-pas ñoom ñëpp seen njaboot ñu ngi ci biir ci turu ñooñu ñëpp nag Serigne Seexu naa mi nga xamante ne moo topp ci man. ak njaboot gépp ñuy sant Serigne Cheikh ndax lim leen jappandal ñu mëna liggéey li mbolo mi bokk ndax liggéeyal mbolo dafa am solo lol. waye nak bari wul ño xamantene am nañ gis-gis bobu, wala xel momu wala xalaat bobu. ndax ñu ci bari dañuy yaakaar ne seen njariñal bop rek mo leen war tax di jog ba tax na yaakaar nañ ne kenn amul pas passu mëna liggéey ngir ñi ci dess mu am tënk bu gàtt rek genn góor mu tasawif bu baax boo xam ne dafa amoon tollu tàndarma di ci sonn nit ñi di ko yërëm benn waay di ko yërëm di ko xool ne ko góor gi xanaa yërëmoo sa bopp tool bi ngay sonn tam leer la ne doo ci jariñu góor gi ne leen xanaa bëggu leen ma fay tàndarma ya ma daan lekk te xaw ma kan moo ko daan roose donc ñun philosophie boobu rek moo ñu moo ñu moo ñu moo ñu moo ñu moo ñu animé muy fexe ba utile fexe ba nga xamante ne sa dund gi day am njariñ moo tax nag Serigne Cheikh ñu ngi lay sant bu baax cant goo xamante ne amul fu mu tàmbalee amul fu mën a yem ndax li nga ñu jàppandal ci liggéey bi nga xam ne moom lañuy ñuy liggéeyal sa maam suñu maam maam Cheikh boroom Borom te suñ ko waxee mooy pas-pas mooy dëgg mooy liggéeyal réew mi mooy nit koo xamante ne day liggéey ci service su askanam ñoom itam ma àndaat sëñ bi nga may ma ma sant leen mooy sëñ na ak ñi ci topp ñëpp ak Cheikh Anta Samb mi ak Fallou Galass Sylla mbokk yi ñu ñëpp. xaadim ma Samba ak mu sëñ Moustapha Ceytu ñoom ñëpp daal ak sëñ Laat Ceytu ñu sant leen fii sa kanam ndax ñoom itam duñu tëdd guddi duñu nelaw bëccëg waxtu wu nekk seen téléphone yi ñu ngi woote ñu ngi xool fan lañ mën a jaar pour li nga xamante ne moom lañ bëgg liñ mënoon def ren rek bu déwee nañu mën a def lu ko kon nag ñu ngi leen sant di leen gërëm di la wax ñoom ci lañ nekk sëñ bi mooy li Luqmaan waxoon doom ya rek ñun daal Luqmaan dafa waxoon doomam leen na nga fexe ba ñaar bu ko di fàttaliku muy lu baax loo defal nit lu baax loo def bu ko di fàttaliku ak safaan bu la nit def itam bu ko di fàttaliku daan wax itam ne na nga fexe ba bul fàtte ñaar bul fàtte mukk yàlla bul fàtte mukk dee ñun foofu la ñu nekk ci loolu la ñuy jéem mbàkke yi nag kuréel googu yëpp itam ànd sant gouverneur te bu ñu santee gouverneur dana àgg ba ci ministre de l' intérieur dana àgg ba ci njiitu réew mi président Macky Sall ndax defe nañ CRD fii bi ñu defee CRD ñu am yu ñu waxoon ne dañ koo bëgg yooyu ñu waxoon ne dañ koo bëgg léegi wax nañ ma ne man seetlu naa sama bopp de ne am na amélioration ndax climatiseurs yi nekk sama kër su màggal ma saanu jot suñ ko taalee day am jafe-jafe mais ren amul jafe-jafe yooyu seetlu naa ne ndox mi amul benn jafe-jafe seetlu nañ ne daal li ñu waxoon foofu daanaka mën nañu wax ne lépp matal nañ ko kon nag ñu ngi leen sant di leen gërëm l'idéal nag amul l'idéal moom àjjana la am nii laa ko bëggee amee naa ko non mom àjjana la am bu fekkoon ne idéal am na kon lu ñëw ci kaw suuf ngir defar ko ñuy sant itam ñi nga xamante ne nag ñooy njabootu maam te bokk ci maam sexant nga xamante ñun ñoo ci bokk yem muy njabootu alaaji ma yoro fal te Mouhamadou Fall max jiite len ñu ngi fi toog tante bi at mu jot ñoom ñoo koy jël def ko ngir maam sexant depuis bi ñu yore organisation ba léegi kon nag daayira ahpadi mam sexant yëpp nga xam ci ngeen bok ndax ci sëti mam sexant yi ngeen bok ndax mam sexant gëmul won dara waaye pas-pas la gëmoon ñoo ngi leen di sant bu baax te ñaan suñu boroom yokk seen wërsëg. bismillahi rahmaani rahim sëriñ bi ñu ngi lay nuyu di ñaanal xalif général des mourides yàlla na ko yàlla yàggal te mu ànd ak wëral di ko ñaanal mbooleemu kilifa diine yi di ko ñaanal xalifu maam Cheikh Anta Mbacké borom gaawan di la nuyu di nuyu njobot gi yëpp di nuyu yit talibé yi góor ñi ak jigéen ñi ñëw fi tay ci ndigalu njiti rew mi muy son excellence le président Macky Sall and ci ak suñu xarit nekk jëwriñ ci gouvernement Sénégal te bokk ci kër gi muy professeur Mame Thierno Dieng ministre de l'environnement ànd ci ak yeneeni kilifa gouverneur de région mu ngi ci waaye ànd ci ak ay directeurs généraux ànd ci ak ay hauts conseillers ànd ci it ay députés waye ànd ci ak ay maire dont le maire de Mbacké yeen ñi ñu andal ku ci nekk xamna na dama leen di ñaan rek tënku ci ndigal pour wax ji du jël temps serigne ci fi nekkit ñu ngi leen di ziar ñi nga xamantene ci réew mi lañu nekk da nekk ci yeneen këru diine yi ñu ngi leen di ziar serigne Cheikh porte-parole famille man Samba Mbacke ñu ngi lay ziar di ziar ki fi ñewal xalif general Serigne muntaha Mbacke muy Serigne mustafa wa abdullah karam Mbacke kaddu yi Serigne Cheikh abdullah ki fi ñu lay ziar di wax rek ne ñaari ponk rek lañuy ñuy bala ñuy jël position par rapport ak doléance yi nga xamante ne moom lañ ñu wax moom la ñu fi wax sëriñ bi président Macky Sall lim ñu sant mooy ñu ñëw gërëm la gërëm xalif bi gërëm famille maam Cheikh Anta Mbacké yépp ngërëm li nag liggéey bi ngeen di liggéey ci réew mi moo tax mu amal leen gërëm parce que ni ko sëriñ bi waxee ku yàlla nattu ba nga jiiteem réew ña nga xamante ne ñoo yor njaboot bi di leen di defloo ñuy def di leen di tere ñuy bàyyi suñuy dox jàmm di ko wax war nga leen a sant gërëm leen taxaw ci seen wet moo tax mu ne ma naa la wax loolu yow muy porte-parole bi mu gis sa taxawaay ci njaboot bi pour que nga jottalil ko ko kep mu bok ci famille borom Gawane mu ngi leen di sant ci taxaway bi ngeen taxaw ci liggéey bi pour Sénégal jëm kanam Sénégal jëm kanam nak mom moy l'imam Cheikh Anta dan def moy di jaamu yalla di liggéey ñepp xam nañ ne da doon investir di am ci yoon waye di dimbali it néew si yi bu ñu leen fekkee war nañu leen a sant te xam ne ndono du réer njaboot gi ci loolu ñu nekk loolu it mérité na cant mérité na ngërëm moo tax président Macky Sall wax ñu ñu jébal leen kàddu yooyu leneen li ci tegu mooy beneen ponk bi mooy président Macky Sall nee na ngeen ñaanal ko ñaanal réew mi kàddu gi ndax nodd gi modon doon di sakku ñaan ni ko président santé pour que nawet bi ñu dugg ni ci yalla défé ci goudi gi nga xamante mom lañu jaglél Serigne Touba jaglél ko mam Cheikh Anta Mbacké yalla def taw am yalla na taw bi continuer te nek jamm ci réew mi nek ndox mo xamante dina gungé doomu aadama yi du lor néna na ñu ñaan pour réew mi am jamm parce que ku jité jamm ngay wul ku bëgg liggéey jamm ngay wul kon buñu fi dajé te nek ñun ñëpp ay jullit te ñu ñëw fo xamantene ne nañu ne luñu fi ñaan yalla def ko kon dañu wara a dékk pour yalla def jamm ci réew mi yàlla tàppe xol yi ke lepp luñuy def ñun wër ko ci gëm yalla té xamné yalla rek ay joxé fi nak ci Daaru Salaam ñu wax moy xam na ne fu luñu fi ñaan yalla dina ko nangu parce que Daaru Salaam bu nekké dekk bi Serigne Touba ñëk sante sant ko dëkku jàmm néeg bi mu jëk am ci liñu jotta jang wala ñu dégg ko moy fi la ko amé fi ci Daaru kon julit bu am fulla ak fayda wala ngay doomu aadama bo fi ñëwé war nga sakku ñaan ñaan ngoo xam ne dina law ci doomu aadama yi yëpp leneen li nga xamante ne mën nañ koo wax mooy yàlla di ñaan rek yàlla may ñu jikko yi nga xamante ne maam Cheikh Anta amoon na ko yàlla diwuñu ci ak tuut parce que bu boobaa dinañ defaru parce que ku am dërëm am ngërëm lu jafe ci réew mi lu jafe ci waxtu wi ñu toll nii ku ko yàlla may mooy di nga doon ab taalibe mooy dinga nga dégg ndigal waaye di nga digne de confiance parce que balaa ngaa gërëm nit danga koy wóolu pour mën koo sant mu def te loolu yëpp daje woon na ci Cheikh Anta jóge ci seen Touba moo tax bu ñu fi ñëwee en tant que taalibe war nañoo mën a jàngat loolu ñun ñi ñu wéy ci te xam ne yoon woowu mooy yoon wi nga xamante ne moo ñuy mucculoo ci àdduna mucculoo ci àllaaxira Sering bi degg na fi ay jambat limay ñaan yalla di ñaan yonent bi di ñaan serigne Touba di ñaan nit Cheikh ant mam Cheikh ant moy yalla naa doon taalib bi fi bi mujjé ñew nek ci jëwriñ ñu may poser problème yi mel lool la mëna ñaan parce que fatali dana am jotali dana am ci lima fi dégg damay ñaan nit yàlla na ko yàlla tombale ak ndogalam waaye du ñàkk koo bëgg def wala ñàkk ceeb farlu man damay ñaan rek yàlla na yàlla def bu ñu koy fàttali mu tombe ak ndogalu yàlla ba nga xamante ne bu ñuy waxati yeneen i doléance la ñuy wax parce que doléance du jeex waaye du nekk li ñuy fàttali boobu léegi billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim Euh, bala may tàmbali ma baamuwaat li ñu waxoon léegi rek ndax dañoo am suñu ñaari kilifa yoo xam ne euh, waxtu wi ni ñu bëggee woon ni ñu ko bëggoon a gàttale mënu ko ne mënuñu ko ne gàttale ndax bi ñu àggee ci sëriñ Abdul Xaadir am na waxtaan wu mu doon waxtaan wu am njëriñ gudd bi nu toogee fii tam kilifa gi ñu wax si Mbàkke Anta di suñ kilifa bi mu jëlee kàddu tam kàddu yi dafa mel ni mënoon na ko gën a guddal sax ndax doyu luñ ci ba loolu jël nañ ci waxtu wi lu bare bare bari waaye lu bari njariñ la waaw julli nag nodd gi nu dégg na mooy yëgle ne julli jumaa gi jege na waaye des na geneen nodd nag goo xam ne bu agsee kenn dootu sañ wax même boo nekkee ci biir jumaa ji doo sañ def leneen kon buñ ci àggee te li nuy wax jeexul mën naa am sax duñ ci àgg ndax li may wax lu gàtt lay doon ndax li ma waroon wax lépp wax nañ ko xanaa ñi nga xam ne waroon naa leen tudd rek te du fi xej ak ñi ma waroon sant te du fi xej eh, buñ ci àggee daal te jeexut eh, ñu jéggal ñu ñi mën a ñi bëgg a julli ji juma dem julli ji ni ñu ko bëggee bu ñu noppee julli juma ku ko defut itam boo jullee tisbaar mooy julli tisbaar kon noo ngi sax alhamdulillah rabbil alamin alladi azamu munazimin huwa alladi nazama tabaraka wa taala nazama fi jismi l insan مجرى الدم والمياه والريح وأشياء أخرى ولا يبدأ شيء من هذه الأشياء طريقة طريق الطريقة التي وضعها عليه تبارك وتعالى ولا تستدم آه، مخلوق من هذه المخلوقات maan maan uxra nu sant yàlla suñu boroom tabaraka wa taala mi nga xam ne mooy organisateur bu mag bi nga xam ne moo organisé ci biir doomu aadama ndox di ci dox deret di ci dox ngelaw di ci dox yeneen di ci dox te duñu tase mukk kenn du ci dox ba wàcc sa yoon wi la sunu borom teg bay fiiroog sa moroom ngeen di am accident ko buur bu xereñ boobu jalla jalaluhu yomb na ko lool mu organiser toutes les sociétés humaines mbooleem doomu aadama yi ba seeni xol dëppoo ñuy wax ci jàmm di jëf ci jàmm comme ni ko ministre bi ñaanee kon kooku natadarrahu li jalalatihi wa huwa al aliyul qadir yuwaffiqa قلوب آه، مجتمعات أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا سيما قلوب المجتمع السنغالي جميعا وبرمتهم وأنزل علينا السلامة والتوافق communiste bi ñaane buur bu màgg boobu ni mu xereñe ba ndox mi ci biir doomu ak ngelaw li ci nekk duñ tase kenn ku nekk yoon bi nga war a jaar la ngay jaar te kenn bokku jeeg sa morom ci ndox yi ci biir doomu aadama cafka kenn ku ci nekk am nga sa cafkal bopp loo xam ne du yàq dara ci cafkal ki ci des suñu borom moomu mooy kenn moo xereñ moo mat a jaamu moo mat a kennal màggam gu réy googu nag ci leen koy ñaane mu dëppale xol mboolem ummatu muhammad sallallahu alayhi wa ndax àdduna bi bari na lool ay ay ay guerre ak ay réeroo yëpp ci biir biir réewi lislaam yi kon nag nuy ñaan suñu borom tabarak wa taala ci màggam googu ak ci doolem jooju mu dëppale xoli jullit yi te dolli jàmm ci lislaam rawatina nag euh, communauté bu Sénégal société bu Sénégal rawatina sénégalais bi rummatihim ajmain suñ borom may leen ñu dëppale xol yi te wàcce fi jàmm wa anzala wa anzala wa anzala alayna assalaamata wa tawaafuq mu wàcce ci nun jàmm te dëppale xol yi ba réero yi wàññi ko ndax gis nañu ne ci ojo yi télévision yi wax yi bari na lool te yépp ay wax yu ñaaw rek loolu musiba la mu wàcc ak balaa mu wàcc ni ko sëriñ bi waxee léegi rek waaye bu nu tuubee delluwaat ci suñu borom rek danañu defal jàmm ni nga ko xam ne noonu lañ ko bëggee ci réew mi kon wax ji lii sama xarit boo xam ne bii sunu xaritoo moo raw bokk ndey ak baay ndax dana bokk sëriñ Saliou Mbacké muy siit na sëriñ Aliou Dia wax na ko euh, li ci des sëriñ Moustapha Lakram wax na ko lenn li ci des sëriñ Mbacké Anta wax na ko kon sama wax mën naa bañ gudd euh, sëriñ Xaadim Sali santal na ma mboolem yi nga xam ne ñoo yoroon organisation bi góor ñi ak jigéen ñi ak taalibe yi seex si nga xam ne ñoo aju woon ci maam Cheikh te ñoom ñëpp seen i sët nekk fi wala seeni doom ñoom ñëpp ñu teew ci màggal gi kenn ku nekk indaale ay teraanga yu bare bare bari te sëriñ Ndiaye Ngayo Xem di seen président ñoom ñëpp maa ngi leen di sant bu baax a baax di sant njabootug suñ Mor Fati Touré ki nga xam ne moom la xale yi tudde woon conférence bi di sant njabootuk Alaaji Ibrahima Dia waaye di sant njabootuk Alaaji Mayoro Fall euh, jërë ngeen jëf liggéey bi lu ci antu li ci ëpp yéen taalibe yi yéen ko def kon nag taalibe bi mu sëriñ bi mu tëdd mukk bàyyi taalibe yi li leen tax a jóg li leen tax a di sonn yàlla na leen ko sëriñ Tuubaa fay ba fay leen ci li koy seen jort euh, di sant presse bi di sant ñëpp di dikk nag ci monsieur le ministre di suñu mbokk Ahmed Mokhtar Ba ak euh, alxaaji Maam Thierno euh, ak monsieur le gouverneur ak délégation bi ñu àndal euh, ah, monsieur le ministre Ahmed Mokhtar Ba ma di la yóbbante ak cant ci président de la république ak ci premier ministre ndaxte chef de euh, gouverneur mi toog ak euh, gouverneur Moustapha Ndaw ak chef de service ci région bi yëpp li ñu leen santoon lépp ci màggal gi def nañ ko ba def lu ñu mën sécurité bi seen Diadio ngi toog gendarmerie pompier ñun ñëpp def nañ lu ñu ak lu ñu mën ñu leen di sant bu baax mbokk yi ñëpp teew nañu defe naa ne. bu sëñ mustapha toogee nii te sëñ Muntaxa moo fi daan teewal boppam mu yebal tey ji ñaar ñoo xam ne kenn lañ ci moom muy sëriñ mustapha Abdoul Akram ak sëriñ Cheikh moom sëriñ Abdoul Atif mel na ni sëriñ Muntaxa teew na fi sëriñ Sidi moom sëriñ Abdoulaat moo fi njëkk sëriñ mustapha moom Cheikh Sidil Muxtaar te tey jii muy Cheikh Sidil Muxtaar

boole chef de service yi nekk ci région bi yëpp ñu ànd ak yow ñu teew si fii sant nañ ko ci bu baax a baax suñu xol sedd na bu baax a baax euh, sëriñ Muntaxa dafa xër rek waaye rakkam ji topp ci moom di sëriñ Fàllu moom lu fi njëkk a yebal mu ñëw fi jàgg fi lool ànd ak njabootuk sëriñ Basiru gépp ak njabootuk sëriñ Tuubaa gépp li may fi war a wax mënuma wax lépp waaye njabootu sëriñ Touba kenn desul waaw euh, li ko dale ci kër sëriñ Modou Moustapha ba ci kër sëriñ Serigne Mourtala Serigne Mamour moom sëriñ Mourtala ma nga ci Amérique waaye teraanga fi teraanga yi fi yónnee mënuñu ko jeexal ci màggal gi Serigne Cheikh Bass nekku fi waaye teraanga yi mu fi yónnee ak ñim fi yebal teranga yi mënuñu ko jeexal kon kër kër yëpp kër sëriñ Falilu kër yëpp ñëw nañ fi mu di seereel loolu rek ndax nga xam ne ñoo ñëpp fu ñu daje lu ñu fa yàlla mën na koo def waaw sëriñ Aliou Dia ñu ngi lay delloo sant bu baax a baax ndax man sant naa sëriñ Saliou ndax dafa ma daan yónni ci gàmmu mbalaxre di ma booleeg waa këram ñu ci moom bu ma ñëwee nga yëkkati lépp teg ci sama loxo boo ba léegi nag bàyyi di ñëw fii ci Daaru Salaam lu fi xew nga ñëw te teraanga yi ngay def day bari lool nga won nga xam nga xam wane ne yaa moom bis bi euh, dangay ngay wane ne yaa moom bis bi boole ci nag kaddu yu rafet yi nga xam ne waxtu woo waxee ñi nga xam ne dañu bëgg xam-xam danañ ci am luñ ci jàngataate maam cerno mi nga àndal professeur maam cerno xam bu wér ne Cheikh Serigne Touba Cheikh Serigne Mokhtar gërëm na ko gërëm na ko ndaxte daaw li ma nekk France lépp bis bu yàlla sàkk Cheikh Serigne Mokhtar dana ma woo wax ak moom ci téléphone yu ci bari ci moom mi moo may woo nga xam dama mujj na ko sëñ bi bu ma sëñ bi bëggatee wax ak man ne ko woo naa boo sonee ñaari yoon rek bu wuyuwul nga ne ko dafa mel dafa tëj téléphone ba waaye ba ma woowaatee insisté ma wuyu xaw ma ku ko wax bi waaye sëñ bi ne téléphone bi xanaa da doon tëju fan yi bul bul ko tëjati dañ lay soxla <laughs> kon maam Thierno dafa am ngërëmul sëriñ bi rek waaye euh, am na yu bari yoo xam ne yi mën si ko wax ndax si du jotaayam kon ñu ngi koy sant bu baax ñëw na fi ci turu mbokk ak turu taalibe ak turu limu mu doon yal na ko yàlla dimbale mooy euh, mbedd yi mooy mbedd yi ak bëri fajukaay yi ak courant bi ak ndox mi yooyu daal ñooy yi nga xam ne dañ fi manqué lool ñu bëgg eh, ngeen jàppale na ci bu baax a baax jot jàppale na ci bu baax a baax dafa son hmm, am li na xob waaw ñu jàppale nañu ci bu baax a baax hmm, waaw euh, ministre Aly Ngouille Ndiaye nag daaw bi mu fi ñëwé eh, dañ ko ñaanaloon dir bu gàtt mu nekk ministre de l'intérieur bi fi président Macky ñëw eh, ci màggalu tuba gi ma fekk ko mook premier ministre ñu ñu taxaw di teeru président Macky ma jox ma nuyoo premier ministre waxtaan ak moom ba noppi eh, wax ko ne ko daaru salaam sag daaru salaam ñu ngi la fay séentu waxtu woo jógee ba ñëw fa da nga xam ne yaa moom daaru salaam euh, daal di ñëw Aly Ngouille ne ko monsieur le ministre loo xam ci màggalu daaru salaam mu ne ma ah du ma ko tardé de <laughs> waaye yow itam ñoo ngi lay ñaanal nga jële fii ak yokkute goo xam ne euh, li nga bëgg a def lépp danga ko def ba àggale lii ma madame Mbaye sant bu baax yaag sa borom kër waaw di ñaanal maam Thierno mi di leen ko gën di dénkaat rek wax président ne ko ñu ngi koy gën di dénkaat maam Thierno Dieng ndaxte kër yëpp Daaru Salaam la Daaru Musti la Touba la Njaareem la kër yëpp fu ci nekk ay mbokk ma fu nekk te lu mu bëgg ci réew mi moom itam doon mën na ko am ñëpp na ñëpp danañ ci ànd ak moom Insya allah ni ko bëgg waaw kon